aljuma bi wessu des ba tay ci xelu liggey bafa pak lambay gannaaw lak bu metti ba fa amone demone nañ seti commerçant ya delu ci ak ñom ci galancor yu mu len jural ak tolof-tolof yi ñu dekké waaw lim ñu jural mom wax deug yalla bañ ginaa biñ nangoni dogal bu joge ci suñu borom la di ka nangu tay sante bu baaxa baaxa baax lim ñu jural mom gis nga ko daanaka mën nañ wax pak bi yëpp daanaka leg ñu nekk en chômage bu ñu xeye tok lañuy ñuy def amatuñu benn affaire bu ñuy def tok di sétane xam nga lool moy suñu problème li fi yàqu nag si moment bii nii mënuñu ko xayma parce que ku mel ni man menuisier laa amoon fi atelier en même temps di élever yoroon fi ay laadum ak ay bëy yoroon fi ay oie yooyu yëpp amoon naa ko fi moment bi lakk bi lakk it li tax dara génn fi mooy euh, trois heures du matin la ñu wax ne la commencé lakk ñun bi ñu ko yëg presque ñu ngi julli fajar.

moom mooy gis ngeen gis ngeen ko ni yàq gu métte métte lam goo xam ne ni tey perte économique bu mag la fii ci fii ci réew mi ak ca làmbaay ga dëkk ndax wax dëgg yàlla li fi yàqu kenn mënutul xayma nu mu toll vraiment fii moom ku fi nekk ba xam gis pàkk bi ni mu ni mu bindoo nga xam li fi nekkoon ci ci ci alal ak li fi nekkoon ci place ñu doon liggéeyee euh, li ci li fi lekk moom lakk moom ëpp na un milliard milliard bu tegal moom mat na ko moom c'est sûr que mat na ko ndax xaalis bu bare bare xam ne ni doomu aadama ñoo fi ko ci temps bu Euh, liggéey ko ci ci ci fulla ak fayda ak ngor té ko bi ni suñ borom ñew dogalé ñew dogalé ko ni vraiment ñom ñep ci euh, lakk bi lañ bok parce que dama comme ni ma la ko waxé 3 h du matin la commencé mama bo mëno won nek fi ni di génn dara parce que bi ñuy ñew fekk na lakk bi danaka lakk na pak bi yépp donc loolu mënatuñ fu won génné dara xam nga motax it aussi tamit euh, comme nima la ko wax rek dara gennu fa dal ñu ko doon jëm essayer parce que doon nañu proposer kenn ku nekk évaluer li nga xamni mom nga yaqulé donc man évaluer na xamna comme nima ko mëna résumer da xamna ay 24 millions côté yoy dal ñi ngi def recensement yi ndax xamna nañ nombre de places fi lak ñi ngi xam nit ñi ndax amna ci place yo xamni seen borom ñu lak amna ci place yo xamni seen borom dañ ko léewoon ñeen lak la fi place ba tamit yaq yoy yëpp alal ju alal ju bari la jo xamni mom